ko fata waaw nijaay si loo de sant gañ lépp jaamu waaw Cheikh foo nekk maay parcelle Cheikh dañu laa gis fi maay parcelle de nga laxat non laxatuma sax dama dugg si rek waaw génn si dindali léegi tey ma génn mu toll boobu tey avance ñu Cheikh ah waaw na de ñu ngi wax nag am nañ ci yaakaar bu baax temps rek xam naa léegi benn taxaw incha allah ndigal ah non muy loolu ndigal nee na du bëre ak man. nga moo ñemewul ndigal. waaw yow si ndigal <laughs> ragal ma ndigal de. kon lan la sa diggante ndigal la moo yàqu si moom la yàqooee. Eh? waaw. Ah, ah, si moom la yàqooee eh, de. yeneen adversaire yaa ngi lu mu am rek dinaa jël incha allah xam naa léegi te lu son lu nar a rek dina yomb incha allah. sa diggante ndongo waaw loolu moom dëgg waa waaw nekk rek bëri ñooy delloo avance gi rek mais du dara waaw. simple bi fu mu si toll. simple bi oh ah, muy loolu simple bi la yi muy loolu dama concentré wu si sama écrit concentré wu si waa parcelle waaw ndax instant yi képp ku am combat dama dama la dama kaa bëgg dama kaa bëgg a gunge quoi. ci loolu laa nekk bi may nekk si mbapat bi aw ma woon temps boobu mais instant yi damaa am temps boobu noonu loolu tax ma bàyyi mbapat beegum concentré aussi sama gars yi ndax nit ñi dañ lay gunge yow tamit da nga leen war a gunge bu ñu amee bés looloo tax ma concentré wu combat yi ma fekk yëpp damay dem may dem ba stade te loolu laa incha allah fa laa koy jàpp te il est temps ñu concentré aussi brodeur bi amul luñ deful mbapat amul luñ deful trophée trophée jël neen ko ci lamb say amateur ñoo la maa leen raw mais il ñu xam ne avantage bi yëpp si bëre dóor bi la lan laa jëlul lan laa jëlul euh, simple voilà dem Niger dem Algérie dem Égypte dem Congo Brazzaville dem dem dem Casablanca Maroc foofu yëpp dem naa fa waaw dem Niger esa amatul lu ma prouvé lu ma prouvé mooy bëre dóor bi incha allah Modou Fou Modou Fou si sonnee rek jox ñu. Modou Fou sonnee jox ñu. nga def sept combats sept victoires. boo ko muy loolu. loolu la yàlla dugal xam nga gars yi moom fu nooy rek la ñuy wër loolu la rek di ñaanal sama doom dey nag le huit incha allah bés boo xam ne dañ ñu ñor waaye Ada Boy Baol yal na ko yàlla may ndam xam nañ ko bu baax arobas xam nañ ko bu baax non mosu ñoo laale mais seetaan nañ ko drapeau chef de l'état bokkoon nañ catégorie mais daa ñàkkoon waaw. seen aada ñëw xeex si combat bi. ndax. dina xeex si lépp lay lépp bu xeexul du am buntu dina xeex waaw ba am buntu jëli ko incha allah. seex foog séeréer. waaw gis maa den rek gis maa fop waa si mo leng joka dena njal lema dene denke dena in bolo wit isa la inje ndam afela ngaro tawe silmang an tawe gija silmang silmang non non suru masi Sénégal bi bi Sénégal di toog sur boobu laa mujjee di nuyu sama Alaaji Mansu Ñang maa ko nuyu bu waaw si mooy maama moo tax duñ jël. loolu loolu muy loolu. kooku li jantewul lamb sax waaw. rendez-vous. le huit incha waaw. incha allah waaw.